asalaamaaleykum cher internaute de Guédiawaye info point com match bi ñëpp doon xaar yegsi nañ si tey la tey donc comme niñ koy waxee le grand derby muy euh, Jaxaay ak Jamono 2 tey nag ñu ngeek euh, le coach de Jamono 2 coach tey nan nga indee équipe bi euh, xam nañ ne jour bi yegsi na tey donc ñu ngi fi stade Amadou Barry à quelques minutes match bi tey noo indee sa équipe tey. alhamdulilah sant yàlla. di remercier waa Guédiawaye info defe naa ñëwoon ngeen suñu entraitement aussi. pour laaj ñu suñuy xalaat ñu wax leen tey moom ni équipe bi comme d'habitude rek lañ ko ni ñu leen ko ni ñu ko doon rek lañ ko amul dara lu ci c'est un match de football on va jouer quart de finale on va jouer pour gagner mais macha équipe bi daal amuñu benn blessé tout le monde est présent waaw tay, on on sait que ne Jaxaay tactiquement dañoo dañoo baax parce que ñu ngi leen di woowee sax Barça bon mën nañ xam tay ban tactique nga nga indi quoi pour contrer lolu ce ce beau jeu de Jaxaay. waaw quart de finale moom amul tactique ñun pressing wo lañuy def football quoi waaw on va on va les attaquer dañuy yek sen kaw pour vingt cinq minutes on va faire le tout pour pour pour jéem ci dougal ay bi. mais vingt cinq premières minutes mom tambour battant lay doon on va on va vraiment pressing la ok coach à quelques minutes derby bi ñëpp doon xaar tey lan ngay wax supporteru jamono ak waaw ñu dal rek de dal sommes a surtout jamono yi ñu dal euh, match de football quatre vingt minutes et ci minutes lu na nous mais nous, Nous ñaan Nous may ñepp ñibbi ci ñu xamné football rek la weesuwul football ñaari koñ yi ñoo dëkk sax ñoo bok en tout cas ni mu tambalé ni alhamdoulillah parce vraiment il y' a il y' a beaucoup d'organisation sécurité bi matna supporters yi aussi dal nañu. vraiment dal bi nañ ko ne di ko def supporter avec avec avec avec beaucoup de de de de de nuñ koy waxee de fair play voilà de fair play. Wow, merci coach kon koku mo don coach jamono bi donc c'est le grand match tey jii mu wax tactique bi mu indi ak joxe ben message par rapport aux supporters donc ñu dem quand camp Jaxaay non lan lañ indi tay merci coach et bon match coach Jaxaay donc muy Pape sar donc le grand Pape sar donc Pape sar comme niñ ko xamé bës buñ doon xaar ñëw na tey muy le grand derby muy entre jamono et Jaxaay tay nan nga indee sa équipe Jaxaay tay ah merci beaucoup maa ngi de di gërëm euh, di leen sant aussi vraiment ci opportunité bi euh, c'est vrai grand derby là, comme ni ko nit mais nous ñëw ñu jouer derby dañu ñëw jouer match de football dañu euh, quart de finale nous ñuy jouer dañu démarrer championnat dañu avons bien objectif de gagner quelque chose cette année. donc match bi yàlla dafa def tey ñun ak la quart de finale vrai effectivement mu sommes suñu benn rival. et nit ñi derby lañ ko mën a tuddee ni ñu ko préparé comme nous ñu préparé le match ñëw football indi li ñu gëm ni loolu lañ yaakaar ni mooy tax ñu gagné ñu indi ko football ak ñoom ñaan yàlla mu may ñu ndam aussi ñu dem seetuwaat li nekk ci kanam quoi waa loolu moo ñu indi tey. waaw Pape Sarr ñëpp a ngi naan euh, kii mooy euh, Jaxaay moom mooy Barcelone bu bu Géejawaay parce que loolu la ñu xam di bon moom ngeen indi ren tey mën nañ xam tactiquement lan nga indi tey. bon tactiquement xëy peut-être bon en seetaanee di Barcelone c'est vrai parce que nous ngi téye ballon nous ñi ngi jouer parce que football aussi je crois que l'OL daf ci am solo Nous ngay des ballon nous da ngay jouer pour public content. pour nous, ñëw seetaan vraiment bëgg football content bon c'est suñu philosophie la dinañ des ballon bi avons joué. comme nous avons fait un début début championnat et je crois que amul dara lu changé bon tactiquement techniquement équipe physiquement équipe bi Tay match bi daal en tout cas lu mu laaj pour ñu gagné ko dinañ ko jëf ba mu jeex tàkk quoi mais toujours ci benn esprit esprit de fair play esprit de fair play tout court dinañ jouer match bi 90 minutes la dinañ ko jox akam li mu laaj yëpp dinañ ko ko jox parce que équipe bi aussi je crois que paré na ñëpp joueur yëpp ñu ngi fi et puis li ci dess mom bon nañ ko bay ci loxo yalla ñu ngi naan ñaan yalla mu may ñun ndam rek waaw on est à quelques minutes de coup d'envoi match bi tay lan ngay wax supporteru ñaari camp muy jamono ak jaxay tay ban message nga leen wax waaw lima waxon kérok di ko wax ay at loolu laay wax man ku ma xam xam ma ci sport xam ma ci football et donc damay wax ne amul leneen lu fi nekk lu dul fair play parce que ñaari quartier yëpp benn quartier la xam nga man tey damay fanaan Angle Mousse ñaari fan damay fanaan Cheikh Wade je compte des amis là-bas samay doom ñi ngi euh, Cheikh Wade ñi ngi Angle Mousse donc amul leneen lu may woote lu dul fair play moom lañu am te incha allah ci kàttanu yàlla man gëm naa ni fair play la parce que public bii nga gis nii jamono ak jaxaay benn public la gis bu match bi jeexe ñoom ñooy nekkaat ñooy àndaat ñu ñooy toogaat naan ataaya ñooy def lépp donc match bi ci jàmm lay commencé ci jàmm lay terminé te incha allah ci kàttanu yàlla jàmm rek mooy xew amul leneen match de football kese la ki gagné ndam li yàlla na ko jiik xam nga ki ñu gagné aussi tamit ñu ñaanal ko mu dem defaru juwaat bu déwé naa mu déwénee mu ñëwaat incha allah ci kàttanu ok mu doonoon coach su Pape Sarr coach Jaxaay donc euh, ñu ñëw si grand derby bi tey ak Guédiawaye info donc coach ñu lay wax bon match à tout à l'heure